turbine bi tey jii kan moo yëg ci kaw turbine bi. sëñ Muntaxa mu sell mu sell ah, xam nga ne liy xewal ba si ah, màggal gi ñu dëgmal safar gi ñu nekk mu yëkkati ma jox ko Ousmane Sonko ne euh, euh, euh, ci safar gi dëkkal mm-hmm. koor gi ah dëkkal koor gi ñu nekk ay groupe des médias daal di fiy dikk gannaaw ab délégation bu yeewi askan wi demee ñoom conférence des leaders bu yeewi askan wi demoon seeti xalif bi ne ko waxal ci li li xew ci réew mi waxal ci mbiru Ousmane Sonko non suñu xalif yi nag wax ko dëgg neex yàlla non dañuy dégg lu ne dinañ dégg lu ne mais terewul non ku leen di caaxaane rek da nga nekkul ci ay xat-xat dégg nañ ci ne suñu xalif yi dëgg la de nekk dégg nañ ko fi dem nañ ba ñenn ñi sax bëggatuñu wax ndeysaan mais gis nga ku si jaax ah? da ngay roñ dem toog jàkkaarloog ñoom. moo fi ne. ma waxante ne Mame Mbaye man je répète une chose quand j'ai vu Serigne Mountakha aller en xalwa. ah foofu laa xam ne problème am na. lors des premiers événements à Touba. mu dugg xalwa. laata koor gi. Oh, oh, oh, laal nañu sëñ Touba. déglu yéen a kaay bi. nee na. Serigne Touba. waaw. al ci boppam ba délégation bi demee da leen jox yóbbal. Ah. gannaaw ba mu waxee ñoom ba noppi ñoom ay Mbodj ñoom Habib si waaw délégation ba. Mm. mu jël tàndarma jox leen ne leen. Mm. yóbbante àq la. joxal leen ma ko Ousmane Sonko mu dog kii fëlam nga mu ne. ndeysaan xanaa kon dog jot na. dog jot na. noddu gi jib na. waaw bàkk bi yëpp jib na. ndigal jëfe. ndigal jëfe. Mm. yéen kaay bi nag loolu la samp Yacine. nee ndax. Mm-hmm. ndax Sonko dana wéyee ndigalu xalif ba. ko wéyee bu soobee yàlla. président Macky la xalif ba sàkku ci moom dana ko def. dana ko def loolu le mooy tontu na ko dinaa ci ñëwaat moom. Mm. nee na xamal ne ko ne ndigal. jibewul ci xaalis bi jëm ci président Macky Sall mais Mbaye gis nga euh, communication bi ci délégation bi def mhm. ci tàndarma bi ñoom ba léegi tudduñu tàndarma te pourtant balaa ñuy génn foofu vidéo yi tas na fu na ci réseau sociaux yi mhm. nit ñi xam nañ ne xalif bi yóbbante na leen tàndarma ne joxal leen ma Ousmane euh, mais ñoom waxuñu ko dañu ne sëriñ bi daal yónni nañu jox nañu pour bu ñeegee ñu jox jëlal loolu photo ya génn tàndarma la ñu yóbbante ca moom ci kàddu ak ci euh, euh, euh, xaw ma sëriñ ca xaw ma nu mooy tàndarma ñoom waxuñu ko waxuñu waxuñu yóbbal gi daal waaw mais ci biir communication bi xam nañ ne nit ñi xam nañu ba pare taloo jarul ñu koy waxaat ah, donc waaw le leader du parti comme waxtaanu biir néeg la woon oh. <laughs> nee nañu va-t-il honorer le patriarche de Darou Minam beneen laaj la beneen dikkaat Les leaders parviendront-ils à délivrer le message de la commission du Khalif aux prisonniers Sonko. ndax bi nekk ci Sébikotane génn nañ ko ko jox. déet balaa Sébikotane kay fee. fa mu dëgg ñoom kay wax nañ ko. ñi yor kaaraangeem. nañu wax ak ñoom ñu may ñu ñu ñu. ñu gis ñu dugal kii. waaw ñu dugal li nga xam ne xanaa tàndarma ji nag duñ ko ca xaj wala. balaa nga koy dugal il faut ñu xool ko. ah mais buñ ko xoolee garaawul tàndarma la après da ngay raxas lekk. luy loolu nag. loolu lekk boo ko andee moom prison il faut ñu xool ko. prison wala pavillon spécial. mais prison la nag prison la nag non non non président Sall. bu leen dugg ci. bu leen dugg ci mbirum xale bi lu mu joxe dañ koy vérifier am kenn du ko vérifier <laughs> le président Sall fu mu nekk nii nag mis devant ses responsabilités yéen kaay ko wax. le témoin daal dina ko cay tontu nee ko foofu nag faaw ma tontu la yow tribune faaw ma tontu la ana ci ana ana le témoin mu nii nee na maa fekkee la police bëgg te moom daa fekke le témoin yéen kaay nee na. bu fekkee ne ndigal jibee na ci xalif bi dem ci Ousmane Sonko ndigal jógewul ci xalif bi. benn ci président Macky Sall il a tout toutefois netre pas en mesure de faire des injonctions au président de la République manul wañ loxoom dañ day waxtaan ak moom rek ñaan rek waaye mënul wañ loxoom ngir nag jox ko ndigal ne ko génneel kii nga xam ne moo di Ousmane Sonko waxu kili waxu kilifa la. bu bu buñ buñ juwaatle. waxu kilifa la. bu ñu ko juwaatle yoor yoor daal di siy dikk délégation ba dem na Serigne Mountakha yóbbante ne ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko Serigne jox na ko tàndarma nekk dogal lii nga xam ne fa ne mooy xiifal gi nga génn ca ajalatu ay dëmboo nee na nag bu dee Pastef ci xol la. Mhm. Pastef ñëw pour wax si nii mais maa ngi cay dox 24 heures daal siy dikk dénouement de l'affaire Ousmane Sonko Serigne Mountakha à plein régime le khalife général des Mourides a reçu une audience en audience démb conférence des leaders bu coalition Yewwi Askan Habib Sy li ma doon wax sànq moom la wax nee na ñun bi ñëwee di wax ak xalif bi ci lii nga xam ne mooy suñu situation bi ñu tax a jóg du lenn dul Ousmane Sonko génn ci xiifal gi waaye it ñu génn ko ci kaso googee mu ne nee na xalif bi la ma leen tontu moo di da ngeen ñëw fekk ma ci liggéey bi jiitu naa leen si jiitu naa leen si ci mbar mi man duma xaar lu nga xam ne war naa see wax mhm. ñu ma ciy jox ndigal may doo ko wax déedéet kilifa la Ousmane Sonko daf ko jàppee comme doomam. dëgg la bu ci waxee war naa wax bu ci wax li war naa wax kon wax na ca te ma nga cay jëf. Hmm. xale bu loolu leen tontu. nous demandons aux autorités de nous faciliter la visite à Sonko. ngay wax de ñoom ba conférence des nee na yéen autorités si njëkk rek bu ñëwee di seet Sonko bàyyi la ñu ñu gis ko. ah quand même. jox ko yóbbal bi. quand même yóbbante àq la. Ah. te nawle daa foor. dëgg la la ngeen war si nee nawle daa foor. <laughs> Ousmane Sonko seen nawle la dañuy jël yóbbante bi jox ko ko nawle moo foor yéen kaay day wax ba tey de avant may ñëw ci l'observateur ak GIGN yi nga xam ne teg nañ leen loxo. li dégg nga tamit tamit ah. daal di ñëw si Serigne Mountakha ba tey tey jii daa kaa daane tey moo occupé li nga xam ne moom mooy actualité bi ah. ak audience bi nga xam ne moom la jox leader bu Yewwi Askan Wi. xalif général bi nee na en en lui demandant d'arrêter sa grève de la faim moom ci boppam. xalif bi am am ñuy poser question ndax Ousmane Sonko dana wéy ndigal la Sonko rompra t son jeûne de protestation avec les tandarma du xalif. beneen na ko def te mu doon diglaay. beneen beneen dialogue politique am na de. Mm. beneen dialogue nga am ca suuf. Hmm? ca suuf a dialogue politique mi ngi màjji màjji. ci suuf. Hmm. li li waykat bi wax ci suuf. wàcc ko ci suuf. wàcc ko ci suuf ah, le mandat yéen a kaay ne am na deuxième dialogue. le mandat yéen a kaay euh, euh, Fabrice. Hmm. nee na ba dialogue bi kon tàmbali na. ndax ndigal li ndigalu xalif bi la. wala ndigalu président Macky Sall mhm. président Macky ca suuf la. Mhm. ah sàkkuteef point point ndax xalif bi. ndax nag nee na xalif bi nee na wax na wax na seet président Macky Sall. Hmm. président Macky peut-être mën na wax xalif ne ko xel. booy bi génn ci mu ne. ay sëñ Moussa ah kenn du ko digal. sëñ Macky Sall mu génn ci li mu ne. Hmm. Macky Sall ay ay may jéem a jaxase ay <laughs> dama ne. ay xalit wax naa président Macky Sall ma ne est-ce que ci suuf xalit euh, euh, président Macky sàkku maanaam ñaan ko mu dox ci kilifteef mu dox ci kilifteef déedéet baatu yónni dafa rëy baatu yónni dafa rëy <laughs> da ngaa dégg wolof da ngaa dégg wolof ba pay di ko teg ci suuf. <laughs> wàcce ko ci suuf. en tout cas daal. <laughs> deuxième dialogue. man da xam wax moom. bu dëngee nii rek mu jubbantiwaat. waaw waaw. en tout cas. yéen bi la mandat moo samp laaj bi. Mm. nee na ndigalu xalif la. wala ci boppam sàkku tee fukk président Macky Sall ca suuf. Barça wala Barcelone bi yéen kaay bi daal dina ciy dikk. ba tey l'indépendant yéen kaay nee na libération du maire de Ziguinchor des détenus politiques Touba fu mu nekk la muy sàkku ci Ousmane Sonko. moo di mu arrêté li nga xam ne moo di xiifal bi sunu xalif général kullu murid kenn du moom kenn du moom <laughs> dinaa ñëw ci ab ki ki euh, euh, euh, nuroowaale Mamadou Fofana gi doom baayam kay doom baayam bi moom tontu na ki nga xam ne moom mooy kan professeur lan wil lan fël <laughs> wil <laughs> réew mi daal ay tontum tele rek ndekete ay tontunte kese la. waaw Cheikh Bakhoum lu mu wax. riposte baa ngoog. Hmm. moo leen doon waxtaanee sànq pire groupé. 142 hmm. universitaires yooyee ba ñu génnee def seen coalition. nee na li ñu bëgg moo di Ousmane Sonko ñu bàyyi ko. gars yi pire groupé la ñu def Abdou Karim Fofana moo njëkk a wax. voir des intellectuels et professionnels du droit pour la majorité des signataires fouler au pied le principe de la séparation des pouvoirs nous interpelle. Abdou Karim Fofana mooy wax de. ñu nay borom xam-xam. xam bu baax. séparation des pouvoirs nit ki foo mën a yem président Macky Sall fan la mën a yem. ñoom ci boppam ñu ñëw di wax lii. di bokk ci lii. la nañ jaaxal. où ils étaient nee na fan ngeen nekkoon. quand le prisonnier dont ils appellent à la libération au mépris du droit disait à des jeunes d'en finir avec Macky Sall et de le traiter comme Samuel Doe. Hmm? où ils étaient. non fan la ñu nekkoon Samuel Doe xam nga ni ñu ko. où ils étaient quand on brûlait où ils étaient quand on brûlait le. man man maa xool vidéo Samuel Doe yi ba léegi. mais Mame Mbaye où ils étaient quand on brûlait la bibliothèque universitaire. loolu itam laaj na. où ils étaient quand on brûlait le CESTI. université. waaw c'est des professeurs. ñoom université. professeurs ils sont des universitaires. Mm-hmm. où ils étaient quand l'université était attaquée. le symbole de la connaissance, de la science. de la quoi. de la science. de la ne mu ne wàllam ci xew bi. waaw nee na n'ayant plus de fonds de commerce pour pour exister politiquement ou intellectuellement certains ont troqué leur leur lan leur taux d'universitaire en échange d'une camisole d'opposants politiques pour parler de saison sèche de la démocratie sénégalaise man gars yi daal dégg nañu tubaab xam lu tax man mënumaa kaa déggee nii rek. kenn xamul lii. dégg nañ tubaab. Hmm? dinaa ñëw ci Touba. waaye maam Boye Diaw wax na. nee na lan. maam Boye Diaw anamu. ana fu mu njëkk wax sax am na fu mu wax de dëggal na boppam de nee na candidat de delluwul ginnaaw de. Hmm. maam Boye Diaw ci boppam. nee na le patron de la CDC qui n'a jamais été ministre tient-il sa revanche ndax nag masul nekk ministre kenn masu ko takk ministre ndax lii mu teg tànkam ni ndax revanche la war a déet coow a suuf fii ci Dakar. ala ala mais mais ngembu maire ngembu. non dama ne fan la toog sax ba ñu war ko def ministre. ah fii ki fi nekk ministre mi ngi koy ëppale. ministre président mooy jël ku ko neex. ministre mooy la. waaw ah. non moom moom. di menacer kii ay noonu la sonalee Massaly non mais ça c'est le président ah? ah. sama dëkkandoo la sama waay la. nitu Thiès la nitu Thiès. waaw kooku nitu Thiès la. xam ah, nga moom daal na Massaly. waaw ma ma ah ah di ñëw ci sabotage ba nga xam ne moom moo am fee ca Touba nee nañ banditisme la nag. Touba réseau d'assainissement ba nga xam ne moom lañ fa def flexible yi nga xam ne moom la euh, euh, maanaam installé sa buntu mairie ba la ñu dagg lii rek moo tax bu tawee ndox ma mënta dem ndox ma dafa jaabaa jonge ni mu leen neexee loolu ci boppam de poyacti nee na banditisme la Sud Quotidien c'est logique aywa ana Odia Odia ngoog ana mu dama koo rombam waaw romboon nga ko demaata ah, Odia moo nekk nii tey fu mu dem Odia tàndarma yi laan bi waaw tàndarma yaa ngi nii Mm-hmm. délégation bi jëlee nañu ko foofee nga xam ne moo di si sëriñ euh, euh, Muntaxa al Muntaxa mu sell mi. Mm-hmm. daal di koy andil nag ki nga xam ne moo di euh, Ousmane Sonko. ña mm-hmm. nga naan eskay akasa ñoom super li ngeen rajo Rota Aida Mbodj ngi ci may mun a Bousso Mali gàkku ñu ngi woon ci délégation bi kii na xaw ma kan la. ah ak ah Girassi. ah oui Girassi nekk nii. kii daal di ni kan la Habib Sy. aywa borom ndax xale yaa ngi yëngal. mi nga ñoo nekk nii. merci beaucoup moom ko baal. xale yaa ngi yëngal. aywa amoon na solo. Mbaye lu gën a fës ci bopp xibaar. ak ba pare naan sa tay wàcc escalier yi. naan fu xale yi toll xale yaa ngi yëngal. <laughs> aywa Mame Mbaye lu gën a fës la ca gën a fës moo di xalif général kullu murid sàkku na ci Ousmane Sonko mu dakkal xiifal ga nga xam ne moom la sumb Serigne Mountakha Mbacké démb dafa dalal ab délégation bu conférence des leaders bu Yewwi Askan Wi doon ci dikkaat ngir nag sàkku eh, ci li nga xam ne eh, moom la Ousmane Sonko nekk ñu waxtaan ak moom ba mu génn ca dinañ def nag ak taxaw seetlu jëm ci jàngoro ji di sukki nguña te diwaanu Kédougou eh, léegi nag lim nga toll na ci téeméer ñaar bu ñu sukkandikoo ci autorité sanitaire directeur régional bu nga xam ne moo nga la wàllum santé bu nag jamono ji district sanitaire yëpp yu nekk sa diwaan daanaka moom la concerné dem beex dikk bi BRT daañ ko waxtaane ci bi la jotaay xibaar dina tàmbalee daw weerub décembre jot nañu ko ba noppi autorités yi nag nee nañu wax fa euh, la ca des bareetul trois cent mille ci passager bés